ñeenti rakka nag mooy ñaari sëlmal jërë ngeen jëf ba subaak jaam riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi